ñu bëri ñoom ñaar xam ne war nañoo bëri benn yoon ñett yoon ñetti yoon ndax ñoom ñoo ñu soom ñaar combat bi ñëwagul waaye combat bu neex la war doon combat la boo xam ne bii bu ñu bëree ba pare sax normalement amateur dañuy yàkkamti ñu dajewaat ñoom ñaar non non jëluñu jëluñu avance Tapha Tine ay règlement la ñu waxoon xañ na doon am réglage bu ñu amoon rek bu ñu war a def ak ñoom waxtaan ak ñoom promoteur bi ñu waxtaan ak moom bu sorteegul ñu gis ne ni ñu taxawe woon ak ni ñu war a taxawee xëy na am na nu ñu waroon taxawee taxawuñu noonu xañ na waxtaan war naa mën a am am ñu génn ñëw ñoo xam na ñu dañu ko yéene jàmm moom am bëgg mu am xaalis bëgg mu am yegsi fu mu yegsi ndax dafa liggéey ba yegsi fu mu war a yegsi mais ba ñu demee itam xañ na promoteur ba ba woote ne kaay leen jël si avance yi waxtaan wi yeggagul loola waroon ñu dellusiwaat xoolaat ne ah li ñu war a taxawee nii la nañ gisante ak promoteur bi ci diggante bi mais jotuñoo jël benn dërëmam du ñaar dërëm mu kenn ñu la preuve mooy combat ba ci nawet lañ daaw la ñu waroon wax nañ ko ma ne ko non du ma mën a nawetoon avance mën nañ nawetoo ama xaalis bi ma ne ko du ma nawetoo xaalis bi da nga am ñaari adversaire yoo xam ni da nga war a bëri moom muy Modou Lo mii di bëre ak Eumeu ak Lac de Guiers bi di bëre boo Boy ñu daan ñaari mbëri booy ñaari mbëri Pikine ñaari mbëri Pikine yëpp ñaari ñu leen daan bëgg nañ leen muy Modou Lo muy Lac de kon ñoom ñaar kenn ku ci am baax na bu dee Modou Lo moom loolu la yàlla dogal noonu la bisimilah bu dee Lac de Guiers waaye comme Modou moom taxaw na dégg naa sax ñu ne moom nee nañu pare na wala pare naa parewul néanmoins ci kattanu yàlla am nañu yaakaar ne bu soobee yàlla du yàgg dara bu soobee yàlla yéen ngeen di ngeen yëg xam ne xew ndax mais Modou day dóor mu daanu jàpp sen roi des arènes dóor ko mu ne këlëb ngeen bëgg ko jox ama te ama xeex bi est-ce na bagaar bu mën a dek Modou Lo waaw mais xam nga euh, dóor mu daanu du bëree moom ama doon na mbër mu daanu ba tey loolu jotewul dara bëre dafa am foo xam ne fa lay nekkee mbër mi en fort mbër fort en fort da ngay jàppante biir bëre bër mu door asaar rek la da ngay jot si pàdd rek daanu asaaroo foofu Modou Lo da dóor Eumeu Sène Eumeu seen ay mbokkam newoon na ko dóoral Modou Lo foofu mais yàlla dogal Modou Lo dóor ko fa rek loolu rek la combat bi yegg yegg si foofu waaye ay mbokkam yi jege Eumeu Sène xamoon nañ ko ne dóoral foofu mu Lo kon ama rek non xamaguñu fayu waaye li wate nous dañoo ñaan yàlla ci kàttan combat bu ñëw ñu jël bu

mais gagneur face à Modou Lo. ama gagneur la gagneur ku mun a daje ama gagneur la. moom Modou mës nañu daje mbapat ñu ci bari di ci di ci wax ama moo ko daanoon Modou moo ko daanoon est que mën nga ñu dellusiwul yow ci événement boobu. Modou moo ko daanoon. waaye boobu bu mu koy daan ama sóoru sóoru la ni la demee da 4 heures 4 heures lañ ko lamb 4 heures mu ñëw 4 heures comme la rek combat bi am ay si ay timis kon xam nga préparation day métti te xam nga sóoru li ñu si sóora noonu sóoru ko woon. mais jàpp nga ni daal Ama Baldé am na chance quatre-vingt-dix pour cent de chance pour pour dégg roi des arènes ci digganteem ak Modou Lo. roi des arènes yàllaa ko jox nit de du nit moo ko jox nit kum yàlla kum ko jagle rek di nga ko jël. mais su tegoo ci yoon bi ngeen ko daan teg dégg seen conseil mën na am opportunité. waaw loolu moom da koy il faut mu déglu ko il mu tegu si li ñu koy teg rek waaw. jërëjëf merci. えっ boyda malama ñaari cukuli cukuli mu ngi yaa ma gën a xam mu ngi suñu xëm rek di waajal gaa ngi coow Ama Baldé ak ki nga xam ne moom mooy ci yoon Balla la war a doon ak ki nga xam ne moom a ah, mais dara làmb la rek yooyu yëpp yooyu yëpp ay combat yu neex la yàlla na suñu borom taxawal combat yi rek affaire yi neex yaa ma gën a xam ñëpp bëri voilà. bala ana branche gënul ci moom. a ah, noo loolu yaa ma gën a xam cukli moom am na staff am boo xamante ne ay bagages am ñoo koy gérer ñun moom ay raqam lañ rek voilà noonu la fa demee. mais daal tey saaram tàng na de sax. waaw mais yaa ma gën a xam ouverture saison bi la dañuy ñëw yëngal si ah ndax yëfu góor la amul kenn moomu ko affaire daal gëm sa bopp rek dem. amul leneen. match bi tax jeex na tàq. Eh, ci kule ñaga doole ngoog. masage a yoɓɓuganga royo ono a mañmañin ewa jayjaye oy yaya jo جوبك من

Mama. sotteegul Sélé ma leen koy lijjanti waaye sotteegul Wagan Diouf sotteegul te yàgg na rasu bi moo sonal général Malika Sélé dafay bëre di ko calculer waaye bu rëg-rëg jeex na loolu rëg-rëg ko moom doon moom la jeex na yàgg na avertissement ñoom ñaar yëpp encore ñoo tolloo avertissement général dafa jox cër waa ji ba mu mat da ko jox cër de trop te jox cër boobu mën na ko indi ay problème da ko jox cer ba mu ëpp eh, général nax na sele sele da ngay dem sele général bu Malika daan na sele mele daan ko demi-finale. léegi eh, demi-finale woon. soo bi na amoo image bi sax. maanaam waaye. dootuma woo la. sible na bu mag bi war dox ci diggante Serigne Ndiaye ak ki xam ne moom mooy bu Malika Serigne Ndiaye bu Faas moo wan ginnaaw général bu Malika moo ngeem moo ngeem lu weex moo daan sànq Sélémélé ci demi-finale yi daan ki xam ne moom doole bu Balla waaye ñoom ñaar ragal naa ni seen combat day gaaw day gaaw ndax miinante nañu xamante nañu aca Ndiaga Dollé Serigne Ndiaye daan ak luy xew ñu ngi lewtoo lewtoo bu dib ndaysaan mbay lu ma ngay way arbitre sible na nee na leen ngeen bare arbitre nee na nañu bàyyi naq saala bi te bëree ak tapale bi wax na dëgg njaga doole général bu Malika Saison 2019-2020 à Jax Production. Hey, la hey, Gérard Lobug, c'est Bunkal pour xale la. général Serigne Ndiaye eh eh général da koy wër da koy wër général da lay daal Serigne Ndiaye gënaan na ci eh Serigne Ndiaye mën na waa général aussi n'était pas un peu trop gaaw tuuti général dafa gaaw takk yooyu day gaaw file woon bëgg koo takk war noo ma eh eh Serigne Ndiaye ngoo force général da daanu eh eh épreuve de force doole doole doole ñoom ñaar rëpp lu xew eh Serigne Ndiaye jël ko jël tournoi bi daan na général Malika jeex na.